Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi taala wabarakatuh. Sangi wa yi waa daara ji delsuwaat nañu ak yeen ci suñu 32e cours boole fer ijji ki moy harf saun da ngay tek sa bëñ salamin sa a la bun sa la bun bo boolee nga ni saala bun saala bun mooy japan ñuy faral di eh, jàpp cuuj yeeg eh, ganaar yi dag sen bop yi bun, si rek lay marun, bun si marun si marun simarun simarun mooy Su su a a ba ba ba nun nun nun su'abanun ba nun mooy tudduma lambay jaan dégg nga di harf sa un sa'un sa sa'un sa a la bun boo boolee bun si maa run si maa run boo boolee run su a baa nun su a baa boole muy sobaanun jërë ngeen jëf asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu